رب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شربوا من عذبي وللجنان خربوا حزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لحسن خيري يجود للجواد بالجياد وصول لي يكون ذا انقيادي أحياني الباخي بلا يماتا ولا تنازع ولا شماتا أعطاني الباخي الكتاب الأعلى ولا أولى أخي كل من تعزم عني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسأل خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليتني ما عن الأنفع دعا خلامي إلى سكور من سقر للخلق بقى إذا من ربي يا مالك خليلي والحبيب وقد ما عني داعي الطبيب برأني من كل عيب ومرات وقاد لي صحة في كل عرات بريت من عيوب نفسي بالتجاه إلا الذي أبوابه لم ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريهم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وازن وجنتي ينقاد مني سلام عن سلام له بآله وأفضل الملا رسولنا أحمد كل أعلام صلوات الأعلى سنت له أبكار أمداه لدى من جيل سأني وسف الخلدا قلبي سفا بكون ربي خلي حبي ولي جعل كسرا خلي وجه لي حلاوة الدارين وفيما جعلني جارين اختفى وكونه لي بمنايا ما اختفى نفعني بما بدا مختفى اختفى وكونه لي بمنايا ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وحزبي وحست منه خير رسول ربي امتداء من به الباخي دفان حسن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تعدين المنى والحكم يقود للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبس علم أهلا برأني العليم من ضلالي فصرت مخسطا بلا إخلال برأني العليم من ضلالي فصرت مخسطا بلا إخلال محى الحكيم ما ترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم حيا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قيمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بلا عناء أو أذى أو كبد من ظن أنه يكون أبدا يردي بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأني الخديم بما ونع مثلي كل خديم فرسل علي الله مام سيدي ابو خادر دي جامبار يون بي باري دي بونتو يون بي ak fi nga xamé né jëm yi nga ñi tok sa kanam seen imam seen bakkan lañ joxé won waye dañoo gisal lu ko jar nak waye kan joxon seen bakkan lam leen fayé ñan nekkandool jamono buñ ko xaman ñëpp yoxe seen bakkan bisub keroog kon Mbàkke ñu ngi ñaan soo fan gudd lool di ñaan nga ñaanal nu ko yàlla aw fanam gudd lool ndax keroog yi fi Seex Ceerno Juuf Lambaay génnee nu ñëpp a tiit waaye ba mu wanee ginnaaw ak léegi amul kenn ku yaakaar kër gi koo xam ne am nga la jaxal amoo dara looy sikki sàkk loola nag mooy sa doxinu maam sa doxinu maam amul kenn ku mas a teg ci kanam koo jóge fa ak rakkam ñi bokkoon ko sëñ Aliou ñëpp koo kee jóge fa ñam fa bàyyi am dara lu ñu xibat ca moom ndax benn loxom boobu doon joxeel fi am lépp te joxeel na lambay gi am na lu mu indi lambay kon sëriñ baa teew ci sa kanam di teewee ak taalibe géewul góog démb ga di yëkkati kàddoog dellawaat la boppam joxaat la boppam ak mbooleem ñi mu àndal ak mboolem ñim mu bokkal Cheikh Aliou Diouf lambay dina ñaan nga gudd fan lool te wér te di ji mi jox nga nungul ko ko te ñaan ko saa boo dajee seeg moom mu mën a jëf jëf juy gàcce lii mu jëf loolu daal defe naa ne mooy kaddu yi. Mbacke moom kaddu yi kaddu yi nga xam ni. sëñ bi dama ciy yokk sëñ bi. nee na lim ci yokk ci jëmmi sëriñ bi. bi mu yëgee xew-xew bi mu yëgee xew-xew yi. dafa woolu sëñ Mbaye Kastoor ca kër ga. woolu Touba TV. woolu Touba TV maa ñëwoon. dal na bis bu toll noonu. woo télé yi rek. woo télé rek. woo Lambaye gépp. woo Lambaye gépp. looloo ma ci doy. daa di wutu nag. daal di wut nag. def ko ci liggéey bi. def ci liggéey bi. ne ma dina wut téeméeri junni. ne dina téeméeri junni. nuyoo ko sëriñ bi. nuyoo ko sëriñ bi. loolu nag dinaa loolu dina ko wax sëriñ bi ba mu yëg ko. loolu ko ñaanal doyul. loolu nee na luñ ko ñaanal doyul. sa tool yee it. sa tool yee it. man mii la defoon jëwriñ ja. moom mii man sëñ Mbaye nekkoon jëwriñ ja. kenn desul moo fa man ke moo fa man loo ko jàpp doyul. loo ko jàpp doyul Mbàkke li ñu ciy dolli. dafa am lu way juróom waxoon sëñ Fallou nee na ba mu koy gasal ca carrière sëñ Ceer nañ nee na dafa ñëw ne sëñ Fallou su ma fi fekkoon say noon Mbàkke dina dinaa leen rey bañ jeex Mbàkke waaye bu ginnaaw nu fi say noon it lépp loo so luñ la yónni dinañ ko song ba daane ko nee na sëñ Fallou ne ko xam naa loolu yi nee na sëñ Fallou ne ko xam naa loolu yi waaye yow li ma la ciy faye mooy làmb naa la làmbaay loolee nag lay yeesalaat moom mi nee na jëwriñ nga ci tool bi mu am kër ñu ñu mu jiite waaye fa mag ña tegoon seen tànk moom mii fa la teg tànkam mbàkke jotaayam benn murit bëgg ko wute sëñ Tuubaa la lay waxtaane sëñ sooy bu nee na ma diw nee na ma di la indil loo xam ne di nga ci mën a sukkandiku kon ñaanal na ko mu yàgg fi na fi yàgg te am ngërëmu sëñ Tuubaa Mbàkke beneen bi ci topp Mbàkke lambaay gépp nee nañ leen rekk leen metti ci ñëw gi mooy tali bii nga jaar metti na leen lool ndax buñ sañoon ci gëddurong bu ñuul ko nga yow ndax bu fekkonte ne euh, am nañ ko ay ay ay tapis rouge lañ ciy lal waaye ni fi nga jaar ak coono yi nga jànkonteel metti na leen sëriñ bi nee na léegi mu saafarawu barke Cheikh Ahmadou Bamba sëñ bi nee na léegi mu saafarawu waaw sëñ bi nee na sëriñ bi lii mu wax moo ko moom lii mu lii mu wax yaa ko moom anwaaru tastaaxoon kulla ardin yansiluuna biha ka annahum li baqaa ilaahi amtaari way woowu moo ko moom way woowu yaa ko moom gan ma gan yooyu yàlla wax nit ñoom yëm na màcc na muy tawee foofa dana wóoteeg fa mu tawut yow mi yaay taw bi tey nee na yaay taw bi barakaatu nee mi ngi delloo nuyoo sëñ Abdoulaye Diouf mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu sëñ Thierno mi nga xam ne moo fi jot toogee jotaayu sëñ Thierno ak mboolem bokkam yëpp ak mboolem bokkam yëpp njabootu sëñ Aliou Diouf. ak njabootu sëñ Aliou Diouf. njabootu sëñ Babacar Ndiaye Thiergane. ak njabootu sëñ Babacar Ndiaye Thiergane. ak sëñ Mor Mané. ak sëñ Mor Mané. ak sëñ Makhtar Mbaye. ak sëñ Makhtar Mbaye Kayre. nga xam ne li ma ci li ma a wax. ak sëñ Mor Awa li ma ci li ma ci wax. sëñ bi ne li ci yéenee wax. mooy bàyyi ba ñu tàggoo. day bàyyi ba ñu tàggoo sax. ci jotaay bi. ca jotaay ba. ci ko door wax. fa la ko bëgg a waxee. waaye eh, Abdoulaye bu baax ne mi ngi sant sëñ Abdoulaye Diouf mii bu baax. ak mboolem rakkam yëpp. ak mboolem rakkam yëpp. ak doomam yëpp. ak doomam yëpp. ci pasteefam. ci pasteefam. ak taxawaayam. ak taxawaayam. li ma ko waxoon daaw jéeg ci kanamu sëñ Jiili mii. ne li mu waxoon daaw jéeg ci kanamu sëñ Jiili Mbàkke mii. ca koor ga ca koor ga. dama ko fu ma la ngay ñëw rek. da ko ne fu ma la séenee ngay ñëw rek. ab yëg-yëg laay am. ab yëg-yëg loolu yàllaa ko def. loolu yàllaa ko def. yëg bi la ci jiitu. ne ku la seen xam ne murid saadix la. ku la seen xam ne murid saadix nga. est-ce que doo ko nattable. ne doo ko nattable. loolu tawféex la. ne loolu tawféex la. xëy na kilifa yi nga liggéeyal. ne xëy na kilifa yi nga liggéeyal. ak sa waajur wi nga liggéeyal. ak sa waajur wi nga liggéeyal. moo ko def ci yow. moo ko def ci yow. li ma la wax léegi it. li mu wax léegi it. ne la bu jaaree ci saw làmmiñ. nee la bu jaaree ci saw làmmiñ. waxewu ma ko bakkan. waxewu ko bakkan moom. yaakaar xam nga li tax wax la te nee na yow xam nga li tax mu wax la ko. waaye liggéeyal Serigne Touba ba mu gërëm la. ne waaye liggéey Serigne Touba ba mu gërëm la. moom laa gën a wóolu ci sama ñaan. ne moom la gën a wóolu ci ñaanam moom. ba nga ju jugee ba nëgëni. ne te ba nga euh, tàmbalee ba nëgëni. wàcce goo. wàcce goo. ci Pastef. ci Pastef. ak taxawaay. ak taxawaay. joxe sa bopp. joxe sa bopp. joxe sa jëmm. joxe sa jëmm. joxe sa alal. joxe sa alal. ba fii nga toll. ba fii nga toll. nga xam ne bu ma lay séen sax dama lay ñëwantu. nga xam bu la séenee sax da lay ñëwantu moom. daa bëggoon a bàyyi ba sëlmal daa bëggoon a bàyyi moom ba sëlmal takkusaan ñëw siyaar si la. far nga yàlla nga agsi ci diggante bi. waaye cant gi daal. sëñ bi nee cant gi daal. làmmiñ yu lott ci wax ko. nee làmmiñ yu lott na ci wax ko ci ci jëf yi weesu yëpp nag. ne ci jëf yi weesu yëpp nag. ba ci sama tool yi ma doon gor. ba ci tool yi mu doon gorlu moom sëñ bi. woon nga ñëw. ne bëggul woon sax nga ñëw yow. damaa bëggoon say say say say say njaboot rek ñëw. ne daa bëggoon njaboot gi rek ñëw. donte yëglewuñ ko. donte yëglewuñ ko. waaye ñëw ga sax dafa diis ci man ndax yërëm la ca. ñëw ga sax daa diis ci moom ndax dala caa yërëm. waaye Pastef bañ ci àndal. waaye Pastef ga àndal. loolu attanu ko. ne loolu attanu ko. attanuñ ko nee na attanu ko. nee sëñ Tuubaa nii fii la fii yayoo na lu ëpp loolu. fi koy def fépp. ne fi koy def fépp. fii ko gën a yeyoo. fii ko gën a yeyoo. man sama jëm bopp nag. ne moom jëmmi boppam nag. kon li may jiital mooy ñaan ci Serigne Touba. kon li muy jiital ñaan ci Serigne mooy mu daal di sotti. ne yoon wi daal di sotti. li ma ci war a def it. lim ci war a def it. ci wax ko ña ko war a def. ci wax ko ña ko war a def. nu mu gën a gaawee. nu mu gën a gaawee. fii ak altine fii ak dana ci joxe jéego. nee loolu yitte boppam la. ndax ba ja ba fi jaaree laata ngeen ma koy wax nee na bi mu fi jaaree laataa ñu koy wax rek. laa am yëg-yëgub. moom la am yëg-yëgub. xam ne lii lu war a xam ne loolu lu war a am la. te buñ ko ko waxutoon itam. fekk na mu ne ci xelam. dafa jaadu moo tax. nee dafa jaadu moo tax. nee na jaadu moo tax. Mbàkke jërëjëf tàllal leen kon. naa dem rek jeex na. nee na dem rek jeex na. jarul muy fekke nee na jarul muy fekke yooyu ak dara moom nee na day yeewi ko fii nga mu dem toogi nee na des mu bàyyi ko gaañ jërëjëf laake seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim yéen mbokki làmbaay ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar ñu ngi nuyu sëriñ bi suñu sang sëñ Bass Abdou Khadre di jël nuyoo bi mu tegaluñu ko ci loxo ku tedd ki sëñ Muntaxa Bachir ñu ngi nuyu ñëpp sëñ bi ñu ngi lay nuyu di nuyu délégation bi nga àndal yëpp di nuyu ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di wax ne tey jii de ñun kontaan nañu Lambaye kontaan na parce que sëñ Touba ñëwati na Lambaye parce que ñi ma jiitu wax nañ ko sëñ Fallou ñëw na fi sëñ Abdou Lahad ñëw na fi tey sëñ euh, bas Abdou Khadre nga xam ne moo sës rëkk xalif général des Mourides di loxo ndejooram moo ñëw seet si waa Lambaye sëñ bi ñu la ci sant Mbàkke di la gërëm di gërëm waa Lambaye di gërëm nag suñu sang bi ak ay waajuram ak ay magam muy sëñ euh, sëñ Xaadim Diouf sëñ bi jërëjëf parce que gis lu baax def ko duñ mën lu dul sant man nag sëñ bi Mbàkke kàddu yi du gudd lenn rek ñun waa Lambaye daal ku ne xam ne liggéey rek lañ gëm liggéey rek ak jaamu Serigne Touba wax nañ ko fi ñi fa jëkk a jaar wax nañ suñu sang yu baax yooyu muy sëñ Aliou Diouf làmbaay sëñ Mbaye Thiergane Ndiaye ak sëñ Mamor Mané nañ àndee nag sëñ bi defe naa ñii fi nekk tey di suñu kilifa yi mujjeew ñu pusa bi muy réer donc ñu leen ci sant di leen gërëm ñun daal taaliba la doon te taaliba la ñuy masa doon may sën bi rek di yóbbante ci ku tedd ki ne ko làmbaay de vraiment ah am na loo xam ne dëgg la wax naa kook yow léegi ci suuf muy suñu yoon wii parce que président Senghor jaar na fi ñu diis ko ko munu koo euh, antuwul président Abdou jaar fi antuwul président Abdoulaye Wade jaar fi antuwul yaakaar nañ ko ci président Macky Sall nag parce que nag euh, euh, vraiment Lambaye mérité na am yoon woo xam ne nit ñi taalibe yi mën nañ cee jaar di dof seen yitte bu boobu passé sëñ bi ñu ngi wax ne dañu am fële xam naa war ngeen koo yëg sax suñu ay mbokk yoo xam ne nekkoon fële ci saldam fi ñuy wax salle de vente ah vraiment di ay jàmbaar di liggéey di indi seen euh, seeni kër te boobu ba léegi ba fa lakk boobu amee ba léegi dañuy xëy suba ngoon di yendu bu xëyee yendu paas ñëw toog ba ngoon ñu dellu loolu metti na sëñ bi ñu la koy diis di ko diis kilifa gi pour que mu jàpp ñu ci a ah, ñaanal ñu kilifa réew mi pour que ñooñu dellu foofu ñu doon liggéey ah mën a yor seen njaboot mën a yor gox bi maa ngi sant ñépp nag di gërëm ñépp sëñ bi di wax ne Mbàkke sant nañu bu baax eh, ku fi ñëw yàlla na le yàlla yóbbuwaat ci jàmm feebar boo amoon wala tiis woo amoon wala tawat woo amoon yàlla na ko yàlla bis bii tax sëriñ Xaadim woote ko ànd ko ay bokkam ak ay dëkkam ba tax nga teew fi ak say bokk ak say wële rek say taalibe njaboot gépp ngi ci am mbir waaye di la xamal nag dafa mel ni wat ca watit la rek waaye bu lool loolu lépp jàllee ñu ngi lay xamal ne la dëkk bii nga dikk muy lam dëkk nga dikk muy làmbaay dëkk bii nga dëkk muy làmbaay pay baa nee mm-hmm. foofee 1894 teñce Yacine Dior Gala Ganna Fall moom la fa teñtanoor wuutu ci dat boobu bi ko teñtanoor wuutu ci dat boobu le premier septembre 1891 ca la teñtanoor signé benn traité ci gouverneur Sénégal lebo Aimé Clément Thomas booba moo nekk ndara ngir booba te bi ci at dat boobu ci lañ jàpp magi sëriñ Touba yi nekkoon fii muy bis boo xam ne bis bu metti la bis bu rëy la te bis la boo xam ne moo jiitu ci yoonu murit yépp ndax tey jàpp na leen le premier septembre 1894 nekk fi bala 3 juillet 1000 huit cent quatre vingt mu génn àddina te da ngay xam ne Serigne Touba le 10 août la jóge jeewal dem Kokki dem Louga dem Ndar le 5 septembre 1895 ci la Serigne Touba dem ci géej gi booy xool date bi ñu jàppoon ñii ak bi ñu jàpp Serigne Touba am na différence ñeenti at ak ñeenti fan. biñ jàppee taalibe Serigne Touba yi fii ak bañ jàppee Serigne Touba di ko yóbbu ndar di ko yóbbu ci géej gi am na ñeenti at ak ñeent bis kon dama ne bis bii bopp làmbaay bi moo jiitu ci bisub yoonu murit yépp ndax moo jiitu bisub Serigne Touba boobu bii jàppeel ga nag du dara la dalan Serigne Touba moo dal ay taalibeem rek Serigne Touba daa bëggan yàlla ak yonente bi te boolewu ko ak dara ñuy bëgg yàlla ak Serigne Touba te boolewuñ ko ak dara te booba it ñu am aw fit am ak njàmbar bokkoon ca nguur ga ne dañuy dem ci sëriñ Touba keroog bi leen teen tanoor wooyee ci pays bi nga xam ne mi ngi tàmbalee buntu kër Aliou Fall ba penc Mbadiane Samba aw lépp ci penc mi la woon guñ dënga fi la nekkoon sump ngàññi ci la nekkoon yu baree bari foofa la nekkoon keroog bi mu leen jàppee foofu gëm guñ gëman sëriñ Touba ak bëgg ko ak seen pas ak wóolu ko ak bañ ko yemale dara leen jàpp wàndu leneen kere bi leen teen jàppee bay bayaar Mamour Dior Kumba Jaariñ Fall moo jiite woon soldaar yi teeñ téeméeri fetal la teeñ jaran muy sàqum fetal yooyee day gudd duñ ko jar waaye lu bari xew na ci muy lu metti lool waaye li ma wax ne sëñ daa wax ne mbërëm sëñ Touba kenn mënu koo daan ñoom booba mandi nañ ci sëñ Touba te àgguguñ sëñ Touba tubaa Touba gën a leen lépp ñu am ak gëm ak am sopp am pas-pas si maanaam tay la seeni bakkan ñàkk ko moo leen gën a leen bañ dem Sëriñ Touba Sëriñ Touba nag def na la ko soob dem nañ ci Sëriñ Touba te ñàkkuñu seeni bakkan ñooñee nag Mbàkke ñoo meññ ñii xëy na loolu nekkatu fa waaye lii fi nekk day ay taalibe lañ yooyu buñ leen bu leen Sëriñ Touba wooyu ñu bu leen liggéey loo ñu liggéey bu leen laajee ñu jox leen ñoom la góor ñi dund jigéen ñi di ko dund bis boobu mën nañ fanaan di wax ba suba waaye du ko jar li ci am solo mooy loolu rek la ca ko sëriñ Xaadim dafa wax ne ngan gi maam Thierno Ibra Faati gane si woon sëriñ Aliou Diouf Lambaye te ba ba mu koy gane si dafa ànd ak sëñ Massamba Mbacke ak sëñ Mouhamadul Moustapha Mbacke ak Cheikh sëñ Thierno ay ab Samba ay ay sa ak Cheikh ab sa Mbacke ak ak sëñ Mbay Penda ak leneen kon dafa mel ni boobu yoonu murit wëpp ànd nañoo maam Thierno gane sëñ Aliou Diouf Lambaye kon moo tax ma ne wat ca watit loolee boo déggee sëñ Moussa naa keroog gën këram ya rënd ak rendi lañuy ñuy liggéeyee gan ñi toox ba mandi ngan bu neex a ko waral kon sëriñ Xaadim daa wax ne ngan gii nga ko gane si xàmmeewu ko ngan googu ko maam Thierno gane si woon sëñ te kat ñiy wax dañuy wax ne ngan googu képp la maam Thierno ma sa gane mos a gane geneen ngan kon bu loolu amee mu jógee fis mu Amadou sëñ mu ñëw fi Cheikh Mouhamadul Basir ñëw fi sëriñ Abdoulaye ñëw fi eh, sëriñ Mouhamadul Mourtala ñëw fi sëñ Sidi Mbacke ñëw fi maam Thierno Mbacke ñëw fi ñu baax ñëpp ñu fi nga wàññi ko tey yor baatu yoonu murit ñëw fi dafa mel ni murit yëpp nga fi ñëwoon waaye Mbacke nun murit yëpp ci baat bi ñu la jox bi la sëriñ bi jox am na num xel am na nu nopp noo ngi diglu waaye am nga ndimbalu yàlla yàlla na jëm kanam ndax kere bañ la ko joxee ba tey lépp loo wax nit mën na cee jariñu bu tontu jotee it boo tontoo kenn ku ne na la ma bëgg na wax moom la ma waxal kon loolu ndimbalul suñu borom la yàlla suñu borom def nga àgg te bañ a am men ndog sëriñ Xaadim nag nee na yaag ñi nga àndal ak ñii teew lebal ngeen ko loo xam ne mënu fay ak i bokkam ndax kat am na loolu bu ko mënee da ko ànd ki bokkam ndax Xaadim Diouf mii kat sëñ Mamadou Fatou Diouf mooy waajuram sëñ Aliou Diouf Lambaye jur ko soxna Maguette Fall mooy waajuram Serif Assane jur ko Cheikh Ibrahima Fall jur ko kon nu mel ci baax doyut déggal na ay magam déggal na ay waajuram nungu na luñ digle mu nekk loola moo ko may lii kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li mu am moo mag kàddu yoonu murit kàddug yoonu murit jamonoy sëriñ Alaaji Baara rekk la fi xew ci sëriñ Bachirul Abdul Xaadir nii mu mel yàgg na koo mel kon lii mu am li ko may mooy jikko jikko jooju nag moo tax ñii ma lim kenn ku nekk xam nañ ne ñooy yoonu murit soo wootee ñu jug topp la war ngaa xam ne du loo leen di jox ndax am na ci ñoo xam ne si nii xamut seen oto nam mel joxu leen gaaswaay gaaswaal da leen a jox ndigal rek départ ñu topp ci ginnaawam am na ci ñoo xam ne si nii itam biñ ñëwee fii la ñu door a joxanteeg moom loxo kon jikko jooju nga xam ne moo nekk ci moom moo waral njabootu suñ Tuubaa gépp maase nangul ko cër bii nga xam ne moom la Serigne El Hadj Bara jëloon muy kàddu yoonu murid ñu teg ko ci xam waaye njëkk muy loolu doomi Sëriñ Tuubaa yi dañ ko daan liggéeyloo ku mel ne Sëriñ Saliou fonkoon ko yaakaaroon ko ci lu baree baree bari ba tax na damay faral di wax ne nit ñi léegi léegi ñu àtti nit te duñ ko xam ndax nit ñett rek la am na ci ñoo xam ne dangay ngay dégg nit bëgg ko kooku bayre da koy def am na ci ñoo xam ne dangay gis nit bëggu ko loolu it taar da koy def waaye nag jaxasoog ni bëgg ko loolu jikkoo koy def nit it mën nga koy dégg ba bëgg ko boo jaxasoog moom xeeb kon sëriñ bi li tax ku jaxasook moom di ko gën a bëgg loolu ay jikko la ci jikko yooyu gënuma koo xam ñi taxaw ndax ku nekk xam na ne yoonu murit wii kin ëpp ki ni attaqué ci yoonu murit di jël ay kàddu di ko jëme ci moom ca du tontu moom képp na kenn mësu ko dégg mu tontu saa yu waxee rek Sëriñ Muntaxa mooy wax bu tegee micro ba pare nag waxi boppam bëggul ku koy wax sëriñ Bachir moom sëñ Abdul Xaadir ba mu dalee bàyyi di liggéey ci yoonu murit kenn xamul kañ la fan yii la ko nit ñi door a xam mooy bi mu sancee toolam yële di xisnu la daal ndax da ci bari ñoo xam ne barkeb sëriñ Touba bi dañ ko xeeb ba jàpp ne njabootu suñ Touba gi état leen di dundal looloo waral ñu bëgg leen a jàppalise ak population bi ak seen i taalibe loo wax ñu ne taalibe yi sëriñ si dañu exploité taalibe yi loolu njuumte boo demee xisnul labraar wala nga dem puut wala nga dem ci daaram jiri móor yi da nga xam ne sëriñ bi ba muy am teraanga booba xamagut lan mooy ndombal tànk cayit képp kuy wax boo sañoon sëriñ ba Bachirum sëñ Abdul Xaadir woo la yónni la la tax ngay wax dangaa ngaa ci moom rek waaye boo jotee ci moom duutoo jëlati kaat gu ñaaw di ko jëme ci moom kon sëriñ bi ñun murid yi nañ takkaat suñ ndigg ci am pasteef ci am pas-pas Cheikh Mamadou Muntaxa lu mu wax suñ tubaab ko wax loo te dama gis fan yi ay nit nek ci réew mi wara def seenu liggéey ñëw ci mom tàggu ko ngir def ko kilifa mu ñaanel leen ñu dem nga gis ay gone yu ndaw taxaw ci télé yi wala réseaux sociaux yi di wax bay wax ne khalifa yëpp dañ leen wara to wo tek leen ci pénc taal leen loolu ñëpp dégg nañ ko muy vidéo bo xamné ne tasaaroo na waaye ci suba bima koy xolaat fekk na ñu supprimer ko ci mbolim réseaux sociaux yi loolu ci ko doon wax dane amna fan wéré at génn Touba soxnaam Touba la nek ndayam Touba la nek bayam Touba la nek Touba la jange ba ma pare mëna yëkëti yëkkati yi jëme ko ci Cheikh Mamadou Mountakha ñukay koy ca xam ngeen né politiciens yii jëriñu jëndee pass pas jëruñu ko de suñ ak suñ Touba li suñ Touba man ci ñun benn politiciens mënu ko ci ñun kon suñu pass pasu yoonu murit nañ ko téye ca moytandiku Cheikh Mamadou Mountakha di wax ñuy am di wuuteeg moom ay xalaat wala ñuy xalaat xalaat yoo xam ne ku ak la mi xalaat nañ ko moytu Cheikh Mamadou a féetewut ak kenn ku dul Sëñ Tuubaa Cheikh tax Mountakha àndut ak état àndut ak opposition képp koo xam ne nangu nga Sëñ Tuubaa di sa kilifa mooy sa kilifa ku ñëw sukk ci moom nag da jàpp ne yow la àndal ndax loolu mooy jikkoy sang waaye bu ko kenn féetale fenn ku ko nangu nag mu doon sa kilifa mu digal la tere la ku nangul mu doon sa kilifa nag mu màndu ci yow lii képp la nañ téye suñu pas sa moytu wax ju sew ji ca njabootu suñ Tuubaa gi ñu war maa leen ca jox leenu cër dama ne lam xar lekk bay bajantu aw nag lekk na ko ne nemm taxaw làmbaay jii ku fi taxaw xam ne kenn du fi fooyee pas ñi koy fooyee ñëpp boo leen xoolee seen jenn maam ju àndoon ak suñ Tuubaa amul wala bu fekkee am na rek génn na waaskan wala mu ñàkk kilifa waaye képp koo xam ne suñ Tuubaa sa maam liggéeyal na ko lu toll na tarfatoon ay da nga fonk njabootu suñ Tuubaa gi bi ñu dugg dëkk bi sama yaram dafa daw ndax damaa gis saay-saay si ni ñuy jàppalisee yoonu murit niñ leen di jaxaseeg njabootu suñ Tuubaa gi bi ñu dugg làmbaay ñu gis mbooloo mi niñ génnee di rëg-rëg ngir sëñ Basiru moom sëñ Abdul Xaadir nga xam ne sëñ Tuubaa la ñuy yàqal waaye sët bi ñëw rek dëkk bi mel na luy toj mu mel na dañuy xëy di yàq fukki di yàq junni di xëy di jébbalu kon nañ noppalu ci mbirum sëñ Tuubaa ca xam ne birum Serigne Touba kenn mënu ci dara ñu kaddu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci taxwayam ci ñepp bëgg ko waye nak ñi ko war a fonk fonk ko te mooy ñan moy ñabatu Serigne Touba gi tambale ko ci Cheikh salih ak mbollem ñabatu Serigne Touba gi yëpp kon nag su ñëwé tay ci bàyyi yitteem yépp ñëw ci tundu wi di lambay dañ xamné wa lambay kat daanañ am ndam waaye amati nañu ndam tey ci gan gi fi ñëw tey jii ndax jëmm la joo xam ne bii day man sama bopp jàpp naa ne ci yoonu murit amut ku ko ci ëpp njariñ kon nag ku mel noonu fu mu jógee jëm fa ñamuy fekk si war nañoo sant yàlla bu baax ndax bari na fuñ ko soxlaa te duñ ko fa gis bari ñu koy wongan waxtu nekk te du leen wuy si du ak ñàkk yi téem de waaye xat-xat yi masuuliya bi nga xamante ni moo nekk ci moom moo waral loolu kon nag bu bàyyi yitteem yépp ànd ak mbokk yu mbokkam yu baax yi muy rakkam yii ànd ak mbokki taalibeem yii fekk si leen fii kon nag na ngeen xam ne waa làmbaay de amati ngeen dam waaye amati ngeen ab sag bu rëy rëy rëy ndax Cheikh Mahamadou Basir mii lii nga xamante ni bii tey cër bi nga xam ne moom la am dafay cër boo xam ne daf ko war a am damay wax ne maam Thierno Ibrahima Faty bi ko sëriñ Touba di dénk yoon yi booba fanweeri at rek la am bi Serigne bi di dem ci géej gi di ko bàyyee yoon yi di ko dégg booba fanweeri at la taxawaay boobu mu ci taxawoon ba sëriñ bi ñëw fekk si waat fekk si ko nam ko dégg woon mu yokk ko Cheikh Mamadou Basir man ci taxawaay boobu rek laa koy xool ndax bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Amin jox na ko kàddu yoon wi ni mu ciy taxawee ak ni ñu ciy doxee ni ko Serigne Dame Diouf léegi. di ci doxe doxe wu rafet di ci taxaw taxawaay bu rafet di di sagal yoon wi ci fan yëpp kon jëmu jooju fu mu jóg ne dafiy ñëw ñamuy seet war nañoo sant yàlla bu baax te xam ne bari nañu ko bëgg te mënuñu ko am kon nag Mbàkke Balla ñu ngi lay sant di lay ñaanal bu baax di feddali sunu taalibe ci yow di feddali sunu sunu kóllëre ci yow di sant bu baax di sant di santaale nag waa làmbaay yépp ni ko sëriñ daam waxee ndax sañ naa leen sant la sant le sa jëm ji kon nag ñu ngi sant nag mbokki taalibe bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah